li ci yéene yi ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, sëñ bi maa ngi laa nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax euh, soxna Naata mbay fan lañ koy dooree ak journal enquête. enquête ci yéene kaay la ñu koy dooree dikk ak ñun ci wàllu ñollu di trafic drogue euh, directeur général bu Lamantin Beach di l'hôtel bu nekk ca Mbour journal bi nañu moom la yoon tegi gët ba ñoo fekk ci moom ñaar fukki buleti cocaïne ak ñeent ca këram la ñu ko fekk waa ji nag daw laqatu ji ca ambassade bu France Macky Sall ca New York ga mu nekk yéene kaay bi dikk ak ñun ci kàddu yu mu bokk na ci remaniement bi ñuy wax di jooyandi gu mu namm ci gouvernement bi Macky ne loolee amee euh, du euh, wax waxeet loolee yéenekaay bi dikkaat ci Joseph euh, Koto Boutchou muy ki nga xam ne mooy tàggat gaynde Sénégal yi ci wàllu football siiwal na liste ñaar fukki gaynde ak ñett war a jongante Côte d'Ivoire Joseph Koto ay kàddoom ci yéenekaay bi di enquête muy xamle ne daal moom calculam benn la mooy fexe nu mu gagné waa Côte d'Ivoire. Libération lu ñu wax ñoom ci suba si. ba tey mbiri Éric Flibert la xëyam mooy njiital hôtel Lamantin Beach mi ñu toppee wàllu dorog journal bi di kàcce ak ñun ci ne daal euh, rëcc na douane yi daw làqatu ji ci ambassade bu euh, France libération noonu la ko xëyee ak ñun ci xëtamu njëkk. Maodo Mouhamed Ndiaye direct info. direct info dikk directement ci gouvernement Macky Sall bi mu ne eh, danañu koy yokk taay ba dafay yokk loolee journal bi dikk ci ak ñun ministre Macky Sall yi njëkk ci gouvernement bi ñu ngi nii seen i portale kenn kenn journal bi nañu lii nag ci yokku la jëm gaynde Sénégal yu jigéen yi nga xamante ne dañu yëngu ci wàllu basket seen i yaat yées fukk ak bi nañu final ba tey ji la ñuy daje ak Mali ci ngoon gi lay doon. Sud Quotidien. xëy ak ñun ci wàllu tàggat yaram gaynde Sénégal yu jigéen ñi ci wàllu basket ci seen i at si yées fukk juróom-ñett boolekee kit euh, footballkat yi nga xamante ne ci équipe olympique bi la ñu nekkoon Sosef Koto bëgg ñu a ak Côte d'Ivoire tax journal bi tënk wax ji ci ne ndaw ñi la ñu bëgg a sañaxal maanaam le défi de la jeunesse. ñu egsi nag ci le soleil. soleil faylu Sud Quotidien yu ndaw yi nga xamante ne ñoo nga ca final ba Sosif Koto mi jël olympique yi euh, ñu bari lool ci ñi mu sélectionné ngir ñu football ak Côte d'Ivoire boole cee kit handball Sénégal gi nga xamante ne ji kon def na ci ay jéego la soleil tëxëñ dëxëñ loolee lépp euh, ci euh, xët mu njëkk bi. li ci yéen kay Mamadou ñu wéy ak le populaire. populaire xëy li nga xamante ne ji moom moo di waxtaan wu mu séq ak jëwrin gi amee wàllu njàng mi du lenn lu mu fa bàyyi muy jafe-jafe yi ci njàng mi wàllu politique loolu lépp wax na ci moom jëwriñ ji yamu ca sax ndax ci wax ji lenn ci kàddu lool journal bi fësal na ko mi ngi xam le ne coalition parti moo ko terrain yam gaar bu mu dem dana ñu wàccee am ñu yéeg populaire moo ci xëy dikk ak ñun livre bi nga xamante ne ji Mamadou Ibra Kane ànd na bind doo ko akum naataangoom tuddee ko Abdoulaye Diop un euh, yi bokkul bib livre Abdoulaye Diop un financier au service du Sénégal la tudd journal bi samp laaj ci ana kan moo làqatu ci ginnaaw nit euh, kookile euh, koto yéenekaay bi nañu gan. ñu wéy ci yéen kaay ba nekk ca xaar yàlla Walf Grand Place. dikk ak ñun ci waxtaan wala boog kàddu yooyu nangoon na ko ci njiital assemblée nationale Moustapha Niass di fa xamle moom sa kër ma jebel lenn ci ñu daroon Abdoulaye Wade tey ñu baax loolee yéen bi dikk ci ak ñun leneen lu journal bi dikkaat ak ñun di Macky mi nga xamante ne ji ministre Abdoulaye Wade ba woon daf ko recycler mu di euh, kii di Seynabou Ly Mbacké Tanor Dieng journal bi dañu def ñi nga xamante ne ji ñooy kilifay dëkk ba yeewoon rek ku ca nekk ñu tegala bopp mbaam xuux ci sa buntu kër bopp mbaam yàgg la ko waral wal fajir Grand Place xëy ci dikk kon ak ñun. ba tey Walf Sport léegi tàggat yaram la. waaw wal Walf Fadjri Sport dikk ak ñun ci Joseph Koto mi mu ne jël nay responsabilité am la tax moo di Sénégal di d'Ivoire ndaw ñi la Joseph Koto jiital. Euh, stade Mamadou Mokho ne ko maa lay wax ñama ba gannaaw Kader Mangane Isiar Dia daf leen a euh, bàyyi gannaaw kii di Abdoulaye Ba yéen kaay bi nañu Sosef euh, Koto dellu si waat indi indiwaat na ko Sosef Koto di xam ne ne Côte d'Ivoire munu ko kon tere nelaw. sunu làmb la ñuy ton tontu de foroox xam nga Tafa Gueye dafay génnoon ne Taïsa nag ñoo ko wër ñëpp ay illettrés lañ maanaam ay naxa naxa lañu Moodu xarañ loo xëy na ko tontu Moodu loo nee bu aw dee am na illettré ci làmb ji am naxa naxa la Tafaatin ne Tafa Gueye intéressé wu ko euh, nee na bu ñu riiree mbir ñoom mbër yi Tyson mun leen a utiliser lan moo tax muy bëreel Nicolay moom xam na ko borom Bantamba muy di Bekay mbay nee na léegi tey moom ab télévision tey euh, dana neex de euh, Bekay Mbaye ba tey muy xam ne ne ku mën a jóge 2STV la bu ñu yaakaar ne dafaa toog rek daal di koy toog fa rek ba ñu faa jógee Abdoulaye Fall mooy bàyyi Baye Mandione mi ngi xam ne ne Baye Mandione tooñoon na ko jéggalu na ko jéggal na ko moom paa bi moo wax loolee xarañ mii nag sama xel daa nekk ci